ngeen jëf la jeunesse derrière madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop pour la lutte contre le Covid 19 ah jàmbaar ji ndaanaan bi ñu ko nag bëri lay bal taxut mën a jam kuy rëbb da ngay ñime waaye fii ki fi mën a jam kenn kese mooy la dame de l' émergence la dame qui a porté le flambeau de l' émergence ki ki nga xamante mooy Ndiadiane Ndiaye Ndioukli Ndiglaan Ndiglaan Sara Ndiadiane ministre de l' numérique et des télécommunications et porte a tax ministre yi dëkk moom mooy doon seen capital tey jii nag ñuy def nag deuxième journée sensibilisation de distribution de masque ma ko Thiès Info à la Une le quotidien ñëpp tey ji ki nga ni mooy distribution de a facilité la tâche ko ñu naan ko nag a jam kuy rëbb da ngay ñimbe waaye nag ginaar su tëbee di gis di kii soq rek waa daa day sul koy soq waaye le quotidien à la Une ñëpp tey ji tey ji di ko waxtaanee ki nga xamante ni ma ne ko jaloore yi mu def ci Thiès ma ne ko doy na waar ki nga xamante ni ba mu nekkee ba léegi ma ko moom luy taxaw Thiès ka moo ko taxaw jóg depuis sa nomination elle est en train toujours d'élargir la base politique kookoy surtout Alboury Penda Ndiémé ki nga xamante ni ko ba Jolof maree naan maamam lañ ko jox mu ba nub ba waa Jolof di naan ba réew mi naan di la wax ajarat Ndeye Tické Ndiaye Diop daal dundal 111 ans sans ordonnance ma présidence la Dior di leen wax nag yendu leen a jàmm. monsieur Cheikhouna Diouf euh, responsable des jeunes auprès du madame le ministre euh, Ndeye Tické Ndiaye Diop tey euh, dañ fi ñëwoon am benn réponse boo xam ne dañ koy def à l' appel de son excellence monsieur le président Macky Sall mooy sensibilisation bi ñu war a def ak réponse bi ñu war a def contre le Covid 19. kon nag xam ne ni le président a insisté sur la jeunesse ñu am benn taxawaay farlu jàppale mag ñi dugg ci koñ yi dem ci espace public yi wax nit lan mooy Covid jàppale leen ci li nga xamante ni mooy mooy yi nga xamante ni moom la ñu utiliser pour aar seen bopp ngir mën a aar askan je pense que appel boobu bi ñu ko ko defee ci la suñ kilifa madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye bi nga xamante ni ku ne xam na ni depuis bi nga xamante ni Covid bi def na entrée Sénégal ménagé wul aucun effort pour taxaw population bi. gis nañ ni depuis bi mu ñëwee début bi daf ko tàmbalee ci indi ay produits yi nga xamante ni mooy détergent eau de javel thermoflash savon. lépp loo xamante ni lu ñu war a aakimal bu ñëw ko indi ko fi indi ko ci ay camions camions wax tasaare ko ci Thiès gépp bi loolu jàllee ñu dem ba ca biir gis nañ ni indi na fi ay toni ceeb suukar dëwliñ ay enveloppe dem ci nga xamante ni loolu lañ naan les mu taxawu leen jàpp leen ci loolu. bu loolu jàllee aussi gis nañ ko mu mën a benn action bu doy waar mobiliser l' ensemble des yi nga xamante ni au niveau de mat deux yoo xamante ni dafa ànd ak famille loolu mu ñëw loolu aussi tasaare ko fi nga xamante ni mooy espace public tasaare ko ci koñi bi loolu jàllee jusqu'à maintenant que la lutte continue xaarul sax appel du président bi appel du président ñëwee nag ci la ñu gën a waat mais il faut que sama jeunesse comme président li mu bëgg mooy jeunesse bépp booloo boole seen énergie boole leen neex li nag lépp taxaw booloo doon benn jàppale culture bi moo tax jeunesse Ndeye Tické Ndiaye Diop tax ni ñoom loolu kenn jut on va au premier plan taxaw suñ ministre war ni ko les jeunes sont déterminés ñi ngi ci ginnaawam ñi ngi ci ginnaaw son excellence monsieur le président de la république kanamu askan wi tànneef gare routière li ko waral mooy ku ne xamante ni garage garage bi mooy première euh, lieu de convergence képp koo xamante ni da ngay dugg Thiès wala ngay génn Thiès fi nga koy njëkkee kon ku ne xam ne coronavirus dafa nekk loo xamante ni booy xool virus bi dafay circuler ni muy boo ko xool ni dem gox ak goxaani solo moo tax on s'est dit que il va falloir que yu ñëw ngeen gis nii ñu taf ko ci portière oto yi ba client yi nga xamante ni ak chauffeur yi saa ñu yi leen ko mën di fàttali ñu ndaale aussi euh, nga xamante ni mooy récipient yi nga xamante ni avec robinet la nga xamante ni dañ koy jox waa garage bi ñoom à leur niveau ñu xool ba xam dañ koy teg ci buntu jàkka teg ko ci porte képp koo xam ne da ngay dugg garage nga mën a raxasu yi ak mooy indi ak gel yi ko defee loolu je pense que bu ngeen ko defee dina mën a yëmbal seen liggéey dina mën a jàppale le président ci li nga xamante ni mooy euh, mesure préventive yi bi ñëw au niveau de la permanence gis nga nit ñëpp dugg ci biir permanence bi ñu ñëw ci yoon bi bañ nañ ko ba fii li ñu def dañoo respecté distanciation bi 1 mètre 5 lañ ko def gis nga fii suñuy nit ñi ñu àndal ñëpp ils ont respecté la distance ndaje nag bu ñu wootee presse bi ñëw ñëpp ñëw ñi nga xamante ni tey ñun ñu taxawee ni gis nga respecté nañ ko mais tey benn interview bu ñëwee fee xamul nu muy def ñëw taxaw suñu wet kooku li ñuy mën ànd na nit ñoo xamante ni seen rôle mooy ñi nga xamante ni ñuy diggante ñu leen di wax ah jëwriñ puusal wala puusal ñu respecté distance bi daanaka distribution bi doorewuñ ko fi tàmbale woon nañ ko ci koñ yi dugg ci koñ yi dugg ci biir kër yi di sensibiliser la population parce que kon na xam ne population bi mbas mi mi fi mais dañoo demoon ba gis ni bari na ci loo xamante ni par rapport aux mesures lu ci mel ni sol masque yi nit ñi ñu ne comme que dugg nañ ci quartier il va falloir ñu xool lépp lu nga xamante nit ñi fa la daje te ku ne xam nit ñi fa la daje mënoo wax Thiès te bañ cee génne garage bi moo tax ñu ne suñu premier acte au niveau des lieux publics il va falloir qu'on se au niveau des gares routières sensibiliser chauffeur si parce que chauffeur si à la kulli àll ñooy yeb client yi que chauffeur yi bu ñu leen joxee ay autocollant ñu taf ko oto ku ñëw bu ñu xoolee autocollant yi mën ay yoo xamante ni lavant teg ko ci kii bi bala nga yëg aussi nga raxas je pense que loolu lu yombal liggéey bi la. Ousmane Niang je suis le secrétaire général du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. maa ngi rafetlu ñëw bi nga xamante ni bii ñoom euh, njabootuk euh, Ndeye Tické njaay bi ñëw nañ ko fii pour jàppale gare routière bi ci xeexu pandémie bi mais avant tout dama lu souligner que ni gaaru routière bi depuis bi affaire yi commencé ba léegi taxawaayu xeex euh, jàngoro bi dañ ci nekk quoi. parce que dès le début ñu nag waa service jeune ñoo doon collaborer fii ñu indi ñu fi ay bag à lavage ay affaires yooyu boobu ba léegi ñuy continuer nekk ci identification passager yi nekk ci euh, sensibilisation ba léegi moo am nag benn affaire boo xam ne aussi il faut ñu leeral ko mooy que ni virus bi comme danañ ne day circuler te ñun dañuy def transport faudrait pas que ñun ñu defee ne transport urbain régulier bi transport interurbain régulier bi régulier bi ñoom ñoo koy tas mais li koy tas mooy transport irrégulier bi ci biti parce que ñooñu du ñu sol ay masque du ñu comment dirais-je du waaw war gaynde du ñu identifier seen i passagers et te ñun ñu ngi ci liggéey boobu loolu il faut que moom mu clair léegi nag combat boobu suñ koy mënee Ndeye Tické ñëw te moom muy koo xamante ni bii vraiment membre du gouvernement yi mën nañ ne moom moo gën a nekk en proximité ak ñun parce que mi ngi dëkk tout juste à côté bu choisir ñëw ci gare routière bi jàppale ñu ci xeex boobu duñ mën lu dul kontaan ci moom euh, kii ko parce que lii mu def nii c'est vrai que porte parole la mais tey mën nañ ne vraiment porteuse d'action la parce que lii moom vraiment leer na quoi parce que lii aussi mooy li xam ne woon parce que regroupement yu mel nii gare routière nii dañuy soxla ndimbal yu mel nii pour faire parce que difficulté yi am mooy da xool nombre de voyageurs yi fii war a jóge chaque jour nga war leen a gérer identifier leen yooyu yëpp ay moyens lay laaj te yooyu yëpp jox leen fexe ba moom mu mu mu mën dem dans des conditions optimales pour mën a voyager donc vraiment ñi ngi remercier action bi di ko tàllal loxo di ko wax ne ko président Mamadou Gaye tout cas moom mi nga xam ne moom laay wax ci kàddoom xamal na ma ne Ndeye Tické moom jigéenam la avant lii di am sax quoi et que yàgg nañoo seq ay teraanga euh, te ñu koy continuer di ko tàllal loxo bon di ñaan collaboration bi mu continuer di woo ñeneen ñi nga xamante ne bi aussi euh, dañuy xeex pour pandémie bi ñu bàyyi xel gare routière xam ne fii ñi fi nekk c'est un lieu de convergence nit ñi li ñu fiy dajaloog yooyu dañuy soxla ay moyens vraiment pour mettre les gens dans des conditions optimales ñu voyager euh, sans vraiment que virus bi di di di tas ci dëkk bi. nous sommes là aujourd'hui tout d'abord permettez-moi de saluer la presse et transmettre les salu les vives salutations de madame la ministre à l'endroit de toute la presse ici présente. Euh, nous saluons également euh, Madame le ministre et nous la remercions également de nous accompagner chaque jour euh, concernant nos opérations de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Et sous la base de, de ça, nous allons remercier et particulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky de par cette initiative dans le cadre dans le cadre de l'implication de la jeunesse pour la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Euh, comme Madame le ministre est quelqu'un qui fédère tout le monde à l'échelle de, de Thiès et au-delà même, C'est pourquoi aujourd'hui, euh, nous aimerions vraiment transmettre ces salutations à l'endroit de l'ensemble des membres de la coalition Ben Boko, ben Boko Yakar, mais également les responsables du parti ici présents pour accompagner la jeunesse de Madame la ministre de Tiken Diop. Nous remercions également son cabinet parce qu'à chaque fois, il nous accompagne, il nous encadre dans le cadre des préparatifs. Et là, c'est à saluer. Pour revenir juste à votre, à votre question, euh, parce que depuis très longtemps, nous étions sur le terrain parce que mon très cher frère Cheikhouna l'a dit, depuis euh, l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, euh, Madame le ministre euh, n'a ménagé aucun effort vraiment pour accompagner la population de Thiès mhm. euh, dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Mais aujourd'hui, si nous sommes revenus pour faire euh, à nouveau un lancement, c'est parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été prise par la jeunesse de Madame la ministre, parce que le président a fait appel. Mais il faut que les gens aussi aient conscients de l'appel du président, parce que le président a fait appel à l'implication de la jeunesse. Mais sur Sur le port correct et obligatoire des masques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous limiter dans le cadre de distribuer des masques, mais nous allons de près de la population, les conscientiser, discuter avec eux pour qu'ils aient conscients par rapport à l'importance de porter correctement son masque, mais également de respecter l'obligation de porter ce dernier. Et maintenant, euh, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de faire euh, ce lancement au niveau de, de la gare routière parce que c'est un lieu de convergence, euh, c'est un lieu recevant du public. Donc il y a une forte fréquence, il y les voitures parce que tout récemment notre doyen l'a dit qu'il y a le transport interurbain. Effectivement, Parce qu'actuellement au Sénégal, nous constatons que par exemple, euh, le taux de, de, de, positivité au niveau de, de, Dakar est différent quand même de Thiès. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, devons également, nous les Thiessois, nous, de nous protéger. Et sur ce, nous devons, nous accompagner euh, la garoutière routière, parce que c'est la zone d'entrée de notre, de, notre chère, de notre chère ville. Disons que Madame le ministre, c'est quelqu'un qui fédère les Thiessois. surtout la jeunesse, parce que nous avons ici présent euh, les, la jeunesse des autres leaders pour nous accompagner, parce qu'il s'agit d'un combat communautaire. Il faut que les gens aussi reviennent sur les termes qui ont été employés par le gouvernement, c'est-à-dire c'est une lutte communautaire. C'est également le port correct du masque, mais également l'obligation de porter le masque. La prochaine étape, c'est que comme derrière Madame la ministre, il y a des jeunes intellectuels, des cadres. Depuis l'appel du président, nous nous sommes retrouvés à nouveau. Nous avons défini un programme de campagne bien défini en ciblant des, des, zones où nous allons intervenir. Par exemple, en quittant ici, nous allons continuer à faire d'autres zones. parler avec eux, leur distribuer des masques. Pour l'instant, nous, étions sur le terrain, nous faisons les quartiers. Mais puisqu'il y a un nouvel appel du président de la République dans le cadre de l'implication de la jeunesse, bien sûr que tout Thiès est concerné, évidemment. tout Thiès, parce que c'est en fait, les préoccupations de Madame le ministre. Parce qu'ici présent, nous avons des gens de différentes localités de, de, Mais juste pour vous, pour vous dire que cette implication à saluer. Parce que disons que, comme nous, comme nous enseigne notre leader, que le président de la République, depuis son accession au pouvoir, il a toujours, pro, il a toujours prôné des politiques publiques allant dans le sens de l'acte 3, c'est l'une de ses premières réformes. Dans ses motifs, qu'il a dit Il veut promouvoir une gestion participative et inclusive de toute la population sénégalaise. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il fait appel à nouveau concernant l'implication de la jeunesse et de la population, avec la tête haute. Madame le ministre m'a remis plus de 10 camions de sable pour les zones inondées de la gare routière. Après cela, elle m'a remis un ordinateur d'une valeur de 1 million 590 000. Après cela, elle m'a aussi des masques. Aujourd'hui, voilà encore, Madame le ministre revient avec des masques, avec des gels. Donc, moi personnellement, à mon nom, au non de tous les ouvriers. Comme vous le savez, ici au niveau de la gare routière, il y a plus de 800 ouvriers. Tous les quartiers de Thiès sont représentés ici. Medina Fall, Ersan, Mambara, Kausara, etc., etc. En plus, c'est un melting pot. Donc, Madame le ministre, depuis plus de 10 ans, avant même qu'elle soit ministre, elle a commencé de poser des actes très forts au niveau des ouvriers. En tout cas, franchement, merci Madame le ministre d'avoir compris que votre responsabilité, d'abord, c'est de rassembler tout le monde. Rassembler pour vaincre le coronavirus, rassembler pour aller de l'avant. Je remercie Madame le ministre au nom de tous les ouvriers de la gare routière qui tournent autour de 800 et quelques ouvriers. Merci beaucoup.